aca aca aca donc euh, ñu daal di jublu rek ci li nga xamante ni mooy suñu revue des titres waaye encore une fois internautes yi nee nañu laata rek ngay def revue des titres chaque jour maintenant il faut nga sànni ñu tuuti kàddu c'est important ngir euh, sa jëmmi maam sallallahu alayhi wa loolu wareef la ci yow mhm. du samay kàddu internautes yi dafa am solo kii jàngat la boo mhm. dégloo li muy wax ni ñu ko dégloo tey eh, eh. leçon bu doy waar xewaate baaxul déggal lii macha allah alors Deja. dañ maa war di jox de. jox naa la dina. jox na téléphone. ah yaa yaa nag lii ëpp na lii sa avenir la. avenir am na nag. salaam salaam. macha allah kenn du moom. kenn du moom mais vendredi moom naa leen indil benn xisa boo xam. Hmm. macha allah. non loolu kenn su koo gis. bu mu bokk ak Moussa ak. non non bokkul ak Moussa <laughs> bokkul allah. waaye li nga xam ne teraanga wu dëkk ba yëpp yëpp yëpp yëpp moo ko wër ba ci village yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo wër dëkk ba. Mm. ñëpp moo la jox mm. Mm. bi may ko lu ne rab yi sax bu ñu waxee. dégg ko xam. yàlla ne ko nag lii bis boo ko mësee nettali jour boobu ngay faatu. waaw. jabar ñu ne ko di ma ko wax. ay oh. même bu dee da ngay dee tey. ajuma oh. di ngeen muñ de ajuma non am na ay di ngeen muñ a muñ a muñ ba vendre di ngeen doog koppam. ndaw soosu day jigéen a am doole bu ko mënee tarbiyee rek. non bàyyi ba bàyyi bañ yegg ca. incha allah kon jeex na taay ñu tàmbale ko ak l'exclusif. nga moom exclusif la génn moom. gis nga Nafi Ngom Keïta keroog bi mu defee publication bi ba pare. ba jam baaraamu tuuma ay nit yu nekk ci nguuru Macky keroog la ndaw si gëj am jàmm. aéroport bu fa eggee ñu tongal ko. muy jël avion Emirates bi ñu tongal ko xam na fan la mujjee. disponibilité. Ah. fii may wax ak yow ndaw saa nga Amérique. non daa jàngiwaat daa jàngiwaat. Mm-hmm. delluwaat na école jàng du wees. Mm-hmm. man mii bu ma fa demee Baba Aidara lu ne laa ko wax pour mu won ma ndaw si pour ñu def émission décembre daaw la woon. Mm-hmm. ñu ne ma ndaw si day jàng. na fi Ngom Keita mi ngi nii aca yaas <laughs> bilaay ku naan góor ñee mën jigéen ñi dañoo xamul rek mm. critique yéene kaay ñëw ak ci livre wu Pape Alé Niang bi livre bi nag plainte la jur mm-hmm. parce que Cheikh Oumar Anne nee na moom day plainte mm-hmm. mi ngi nii de da koy plainte de day plainte na fi Ngom plainte Pape Alé Pape Alé <laughs> mention spéciale Pape Alé Niang Ballo waaw kay vingt-quatre heures ngi nii nag mm-hmm. xam nga gis nga yaas mm. Eh, suñu alal alalu askan wi lee. doy na waar. rapport yi daal kër yi ñu leen di toggee bu ñu neexee ñu ne am ay ay sëg la yoo xam ni rapport yi est-ce que du affaire caaxaan sax. yéeme na Ahmed yéeme na dafa dafa c'est si luur lourd. mais te lii di nekk dëgg baal ma rek am ñaari question est-ce que ñii xam nañ fan lañu mën a jëme ak lii lan la mën a indi ci dëkk. tey taal dëkk. mais lii wóorul. ba bu amay impunité bu. désherbage 60 millions gas fosse. non ñu ne la defar fosse 50 millions. mais ñi dañ yàpp a jënd fosse. nga dem jënd laadum ne maa ngi jënd xar dem jënd xarum ci xur li wax. benn pël pël buy jar fukki junni nga jëndee ko 200000. c'est incroyable nit ñi xam ne xaalis bi ñu yàq pour lan la. ah, ah. non mais c'est grave. sur ñun ci droit de l'hommiste gis nga bokkuñu gis-gis de parce que maître Pape Sène mi moom li mu wax waaw waaw pour. voilà voilà voilà waaye Seydi Gassama ak maître Assane Dioma Ndiaye moom. mais il faut qu'il y ait des sanctions. non mais bien sûr. Mm-hmm. il le faut. bon mais boo bokk ci ñoom ñu sanctionné la boo bokkee ci ñoom duñu la sanctionné. waaw parce que ci nga bokk. Ah! manque de respect la. mais c'est grave on ne nous respecte pas. la CNK ñëw ak ñun ci Cour des comptes xam nga ñoom dañoo joxe ay recommandations. Mm. loo xam ne moo maanaam ñoom loolu lañ sant Macky pour na ko def. ces magistrats financiers la makki nag nee na dina ko appliquer. bu koy appliquer di dégg jàmm. bu koy appliquer di dégg jàmm. est-ce que dina nekk xaw ma ko. le témoin yéen a kaay ñëwal ngi ci corps de contrôle yi. <laughs> nee na que lii jël waruñoo jël essence dajale leen ñoom yéen. wallaay sotti ca costal. ay waaw wax ma ban njariñ la am lii lii yan njariñ la am. Hmm. Ah? ah yenn dossier bu ci makki deful nii. Hmm. conc teg conc bi. teg ci nii concam bi. Mm-hmm. ah moom moo ko waxoon de. ko waxoon ci benn télévision étranger ah. waaw. Mm-hmm. mu ne moom ci suufu kuddam bi concam bi. Mm-hmm. moom teg na ci ay ay ay dossiers yoo xam ne bu ah. bu yëkkatee woon loxo bi rek làmbaay ñaaw léegi dossier boobu ñan la. oui ñan la moom moo ko wax ah. wallaay réew mi quotidien ñëw ak ñun ci Macky ak lan la nar a def. Macky nee na day créer benn commission woo xam ni dina jublu nag ci wàllum résultat yi di génnee ci rapport yi waaw. <laughs> Macky moo ne woon la CREI c'est pour eux. Mhm. l'OFNAC c'est pour nous. mais et la commission. dans tout ça pour qui. non pour qui. pour qui. bilaay non loolu la ñuy laaj. et pourquoi Macky def ne CREI bi ñoom la. Mhm. maanaam ah, ñoom la. entre guillemets mën nañu ko tuddee kon waa PDS. ñoo moom créé. Mhm. OFNAC nee moom moo ko créé pour ñoom. Ah, ah. ku fi dem ci daawaale tey nga dee. OFNAC ñëw génne. waaw waaw waaw. OFNAC ñëw génne. <laughs> of nag ñëw génne waa léegi commission bi muy taxawal xanaa xanaa du ne pour waa Subatel la de. ñun nañu dimbali ñun de dañoo dénkul sax ba ñuy dimbali. dañoo nekk ci yoon ci yoonu bopp. enquête yéen a kaay ne ma kee ngi ni jàkkaarloo nag ak ay njuumaam ba tey. mu ngi nii commission bi muy def. dut la jur sax. mais est-ce que nit ñi fi mu nekk nii dinañ ci am confiance. Hmm. journal bi ne déedéet parce que coowal Khalifa Sall. ak Karim Wade tey bu Njaay wallaay ak ay dañoo wallaay mais ñooñu bi ñu leen bëggee sanctionné dañ leen a sanctionné mm-hmm. door leen ba damm leen laa la mm-hmm. mm-hmm. mais pourtant ñi nga xam ne dañ leen a épinglé bokk ci ñoom ñu ngi ndaataatalax gundaan naa noos doxi seen soxla ana mu mujj fenn le quotidien yéen kaay ñëw ak ci rapport yi nga xam ne lu yàlla xam doy na gis nga eh, ñaxtu gee kaas gu mitti gi contestation ñoo dem ba discrédité muy OFNAC muy Cour des comptes muy IGE crédibilité zéro. kenn gëmatu leen xam nga ngay wax loo xam ne du dëgg du dëgg du dëgg du dëgg du dëgg du dëgg da dem a dem a dem ba. loo ñàkk fayda merci beaucoup. Ah, da ngay mujjee ñàkk fayda donc bu mu ne. gaynde gaa ñëw. <laughs> <laughs> ne nax naa leen. <laughs> dellu siwaat ci biir village bi. tey ngeen dee gaynde ñëw. ñëw. village bi yeew borom doom yeeg même ëmb dañuy guut guuti ak seen biir taw waaye ba gaynde ngay ñëw nag. mu ni leen naxuma leen gaynde gaa ngi ñëw ñu ne ko ay eh, bu ñu fontoo waaye eh. gaynde gi fekk fa gaynde gi fekk leen fa wallaay ndeysaan loolu lay indi mm-hmm. Dakar Times ñëw c'est une belle métaphore loolu lay indi eh, ñu jékki-jékki gaynde gaa ngi ñëw waaw <laughs> mënatuñu wax dara ba ni ñi gëm leen <laughs> dégg Dakar Times ñëw ngeen ci abu Aboubacry Sadikh bi mii di directeur général port mm-hmm. journal bi nee ne gis nga xaritu Macky Sall bi il faut ñu jublu ci ay mbiram hmm? xool yorinam juróomi milliards la génnee ne nañ leen ci tabax benn immeuble. Hmm. nee na pour siège. te moom daal luyee instant bi. Hmm. te boobu fekk na direction générale port génnewoon na fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards. 17 milliards. Hmm. pour ñu jënd site. pour site. yeneen cinq milliards. yow ci jamono ñoo xam ne cour des comptes baa ngi ñëw. moo tax journal mu baan bi ne gis nga port dañ fa war a yóbbu IGE inspection générale d' état. ñëwal guddi ñu toll nii gars yi dinañ ñu ñu Euh, APS. waaw waaw. directeur général baa ngi nii Thierno Birahim Fall mii moom ñaari délégué personnel Assane Fall ak Pape Koli section recherche la ñu mujjee. waaw ah dañ koo tuumaal moo tax waa Synpex naqarlu nañu ko de président Macky Sall nag joxe naa ay explication coronavirus gële ca ca Chine. waaw nee na mënuñoo jëli Sénégal Macky moom jël na ko bi. li ma mooy li mënuñ leen a jëli ndax amuñu ay moyens. c'est loolu la wax sax ci le quotidien. wallaay kon nag la logistique bi waaw lu. loolu nag mooy laaj bi nag. Ah. ndax kon léegi sénégalais ñoom dañ leen di bàyyi noonu rek. Hmm? léegi yeneen yeneen dëkk yi di yóbbu seen i seen i ressortissants yi nag. ndax nga ñeme ko wax. moo tax journal bi <laughs> explication tigo. Macky Sall nee na amuñu logistique. c'est grave c'est gravissime. il faut que ñu am personnel boo xamante ne nii ab compagnie aérienne bokkul ak ñi nekk ci biir compagnie aérienne bi xëj na te gars yi bu ñu leen ci liggéey ba indi tam dañ leen di yóbbu quarantaine teg leen ci benn mënuñu ko daal mënuñu ko. le soleil yéen kaay ñëw ak ñun ci Géraud Mousseri directeur u BP Sénégal ci wàllum pétrole beeg gaz bi nee téeméer boo jël ci alal ji. juróom-ñett fi koy ci réew mi la ñuy des. xanaa dafa gisul liñ dund ci autoroute à péage bi nañ leen toog rek ba booba. <laughs> kii kii boo demee moo gaynde gaa ngi ñëw yem. <laughs> libération yéen a kaay ñëw ñun ci Aliko Dangote. mi ngi nii. lu xew waa kër Kader Mbacke. ñoo koy yóbbuwaat ci tribunal. histoire bu yàgg boobu. vingt milliards lañ koy toppi Dangote direct news ñëw ak ñun ci Mohamed Boun Abdallah Dionne Yaas doo tourné journal bi yooyu di Yaas. Yaas xiif. Yaas na xiif nga dégg nga. Boun Dionne na ngi nii ñu naan xaw ma day dem xanaa day wàcc. Aminata Tall de fi nekk nii moo taxaw. ah bon waaw Moustapha Cissé Lo. waaw su Boun Abdallah. Moustapha Cissé Lo nee na directeur yi nga xam ne dañ leen a jàmbaaraamu tuuma yëpp. dañoo war a wuy ci nii ak ci nee. directeur bi <laughs> kii nag directeur euh, euh, kii nag APS moom moo dem ba marché <laughs> dee fa ñëwal grand place ñëw ak ñun ci gis nga makkee ngi nii nee na mënul indi gars yi. c'est terrible lii kenn xam. baax na wàcceel yaas baax na les éco yéene kaay nañu xam nga Macky Sall dafa am benn prix boo xam ni benn prix bu bidon la sax xusmaa ñàpp buñ ko jaglelee fële ca Corée mais Macky nee na xolam daal mayu ko mu dem ba Corée team sénégalais yi nekk Chine te du fa jaar jël leen te mënul wàcc déedéet daa yónnee Amadou baax Mm-hmm. sa Tall Sall ak Abdou Mbow pour ñu dem jëleli ko ko moom nee na demul demul. mais ñooñu xanaa du ñëw autorité. xaw ma de maître Djibril War nag xas na kilifa ba mu ne ràpp. maître ndax kilifa da doon xas da doon xas Ablaye Wade. évidence yi ni kaay ñëw ngeen ci impôt domaine ay jaana fa génn. Hmm? jaan yu ma tey karayee. jaan dëggantaan. waaw ah jaan foo dafa am. <laughs> box foofu ñëw ngeen ci. xale boobu am ñeenti at ñu yegg ci kaw lii dëgg la état d'urgence bi ñuy wax bi ci Sénégal nag mi ngi nii. viol yeeg. lii lu mu doon. inceste yeeg coronavirus. coronavirus a ngi nii <laughs> coronavirus gaa ngi nii. le président Macky Sall au sol. bon déggoo ma nee du dem. ministre santé di dugg na biir port Dakar. mu ngi nii de douanier fi fii ne ñu ngi tëkk ne taxaw. waa chinois yi jógee di ñëw daw si di ñëw nag. mais ñooñu est-ce que duñ fi indi malade yu wóor centenaire est-ce que wóor na dem sax léegi. <laughs> kumbakat mi ñu ne woon dañ koo kidnappé day moom it ay mbiram doy nañu. waaw waaw mi li a lijjanti dafa bari. réew mi. Euh, c'est compliqué dëkk xam ne tappale nju njaaj rek du dem munuñ dem il faut gars yi gëm yàlla dëggu bàyyi yëfu tappale yi ñu nekkee. jël xaalis réew mi di ko caxat caxatee nii. mais mais est-ce que pouvoir amul réalité. maanaam. Ah, mën kat damaa waaru. mais amul parce que kat damaa xam ne gars yi. gars yi président Diagne gars yi bu ñu nekkee ci opposition. wax bi gars yi lu ñuy wax. ak bu ñu ñëwee. waaw Ablaye Wade amul droit fal mbokkam. donc Ablaye Wade tam naan les médias. public d'état ni mm-hmm. Macky Sall lu mu kaas yi ci médias d'état yi. te xoolal ñi gënoon jox cër ñi gars gënoon bëgg nga xam ne buñ ne bi ñëpp déglu leen xoolal après déggatoo leen sax pour ñu pour yoon da nga leen di sax ndax ñu ngi ci dëkk bi. ok moo fi ne ay. ñu baax a baax. ma kay kay jaajëfal ma rek mën a tekk. ñi nga xamante ni ñoom laa tàmbale ku ci mel ni Pa Assane Yacine ba euh, merci d'être là coach. pour euh, le bien-être des, des téléspectateurs et de nous surtout des Sénégalais. samedi incha allah ma di leen jaajëfal yéen téléspectateurs et yéen internautes yi je vous laisse avec euh, la bonne suite des programmes sur la Sen TV on se retrouve demain dans Soubatel pour beneen numéro à demain bye bye. incha allah.